tabaarakallah di ñaanal bu baax ah, ah, fa tabaarakallahu way juru Cheikh Mouhamadul Bachir yal na yàlla dolli ko yërmande waaye alhamdulilahi rabbil alamin moom de def na lu ko waroon tabaxal nañu jàkka bàyyee ñu utem daara alquran kon dañuy mën a dañuy wax ne ñun amuñu lay de ñun jullit ñi rawatina mbooleem ku wër gox bi amuloo lay démb rek maa ngi koy wax lii bu fekkoon ne defu ko woon jullit ñëpp dafa jaadu ñu dajaloo def ko moom mu jaral ko mu jël alalam def ko ëlbati ko jébbal ko yàlla ne bu ma génnee àdduna tamit kenn du ko donn ndax alalu jullit ñi la kon alhamdulilahi rabbil alamin yal na ko yàlla dolli yërmande fi mu tëdd yal na ko yàlla seral ndax kat dañuy sant yàlla bu baax ndax yonent bi sallallahu wax na ne képp koo xam ne tabaxal nga yàlla fii ci kaw suuf néeg néeg néegu yàlla tabaxal nga ko yàlla fii ci kaw suuf donte ne lu toll ni tàggu picc la yàlla dana la tabaxal njéendi ci aljana muy tab muy pale te moom nag def na ko alhamdulilahi rabbil alamin tabax daara itam doomi jullit yi di ci jàngee moo tax bokkoon na ci ay kàddoom lii de bu ma génnee àdduna tamit bu ko kenn du ko doon waaye na ngeen xam ne itam cas social la na ci jépp jàpp ndax ku ci jàngee wut itam sa njaboot mën na cee jàngee walla sëb sët kon kenn bu kenn jàpp ne lii kat alal waa daara ji rek la moo tax képp koo xam ne yàlla man loo na la nga man a def lu baax yàlla na yàlla nal la defal la xéewal ak teraanga ba nga mën a jàpp ci liggéey bii nga xam ne moom la ñu bàyyee te lu ñu mën nag incha allah danañ ko ci def ba ku ñëw fekk ñu ci yàlla ñu yàlla may kàttan may ñu itam tawfiix bañ man koo àggale comme nam ko bëggee woon nam ko daan waxtaanee ak ñun liggéey ko ba mu dëppook jamono ba ku ko xool xam ne ni ñii kat ay jàmbaar lañ ay jàmbaari lislaam lañ loolu lañ bëgg continuer nam ko bëggee woon nam ko yéenee woon te nam ko yéene woon jullit ñi itam noonu rek la ñuy continuer di ko yéene jullit ñëpp kenn ku ci nekk yéene lañ la sa ñaq dugg ci ndax lépp aw yiw la ñeel la kon yàlla ñu yàlla doole dimbali yàlla yàlla kàttanal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi sant ñëpp ñu ngi